Assalamualaikum mbokk élevage assalamualaikum waa Gal TV man la Baba Euh, nek éleveur fi ci donc ñu ngi en route euh, vers le vers la sixième édition du Ramadan des éleveurs. ren Ramadan des éleveurs nous ngi amé comme d'habitude terrain mont cinq du 29 au 1er avril à ah, ren à ah waa ren li nag indil nañ len ay surprise yu dul jexa parce que ren Ramadan des éleveurs dafa ñew ak ay innovation ren nag sixième édition bi ñu ngi ko darajalee ki nga xam ne mooy Issa Saka nekk vice président bu Adam mhm. ci catégorie mâle adulte yi ñu ngi ko jox Diagne Modou borom bergerie Cheikh Ndiouga Diagne mhm. catégorie femelle adulte ñu ngi ko darajalee bergerie Khadija Ibouye Khadija catégorie mâle espoir ñu jox ko Serigne Harim Sène borom bergerie Touba Lambaye mhm. catégorie femelle espoir ñu ngi ko jox Mouhamed Diallo borom bergerie Cheikh Ahmed Tidiane Serif borom métal art catégorie agneau ñu jox ko Mouhamed Wan borom bergerie Wan Family Khidmatul Khadim catégorie bi nga xam ne mooy agnelle ñu jox ko Cheikh Kébé lay borom bergerie Mouride ren Ramadan des éleveurs sixième édition niveau bi day gën a kawe. Samagal TV gis ngeen euh, kon euh, gis ngeen dégg ngeen waa wax en route vers euh, la sixième édition Ramadan des éleveurs Paaroon ñu ngi lay nuyu deux ziar lan ngay wax waa Samagal TV ak éleveurs yi ci édition bi. mbégte. Uh-huh. mbégte bu rëy. Uh-huh. Samagal TV moom. Uh-huh. suñu télé la. Euh, sant yalla nak bi nga tew fi euh tew nga moy que visibilité déjà visibilité <laughs> voilà visibilité parce que yow ci ngay mhm. une communication très professionnelle ngay maintenant euh, date bi ñu du premier ah. du pardon du mars donc au er avril ah. Hein, n'est-ce pas voilà

ok kii doomu kobi la xar bii dafa dëxiñ lu bari. mu ngi ci quinze mois et demi pratiquement fin mois bi lay am bii lay am seize mois. macha allah voilà moom sëtu euh, mbaarik euh, la. ok moo jur moom moo jur yaayam. macha allah moom yaayam Abdou Fall doomu Sibéeru Birane Gaye. macha allah uh-huh. mu jóge foofu laalaat gànd bi. boy taala di mamam bolé ci machallah allah ah nefertiti di mamam nefertiti bu kan bu matar ñaa ah machallah allah yi ndaanaan la mom legi mom mo mo samp wara liggey legi mom mu ngi liggey commencé na ki mom moy le prince de dum wacce ko wacce na domam ak fi ah machallah allah malak waaw kon gay nañ xol domi kon da mom mën nañ ko xal ci ci ci ci ren li bi rabbi allah rabbi yaakaar nañu war na meuna ñew taalal bës bi taalal bës bi voilà waaw dugg ci F1 F1 défilé comme ñëpp waaw défilé dina défilé fu mu défilé incha allah kon moom Samagal TV xaar leen ko mais ni nga ko waxee jargaraaf moom ak jaraaf la mooy seen pulaar la ah. xam nga lébu dañoo jaar ci pulaar yi ok xam nga bu njëkk empire loolu day say sori uh-huh. mais xam nga Sénégal Sénégal mu ngi cosaanoo ci empire du Ghana ok empire du boobu moom moo boole woon ñoom Tekru rek empire Malek ñëpp xeet ñëpp fa la ñu nekk ci dex gi ok boobu li ñaa ngi jóge Saara

déeg waaw déeg bu mag xam nga déeg boo bëggee xam li ñu fi ñëwee parce que mag ñi bu njëkk fu ndox ne la ñuy jege waaw parce que boobu mag ñi lu ñu doon dundu mbéy lañ doon dund chasse ak kayit waaw donc fu tooy la ñuy gën a jege boobu ñu ngi jógee Saaraaba ci kas-kas boobu nag dafa amul déeg bu mag déggu lébu yi lañ ko doon wax lébu yi dañ fa dëkkoon boo fa demee da fay fekk ay kanari mooy ay ay ndaa nda yo xamne ne dañ ciy denc ay perle xam nga mag yooyu fo moo nekkoon seen denc macha allah mag ñi si yoy yoy bo gasee bi ñu ko gasee won dakh gi gogou deg gogou dañ fi doon fekk matériel lebu yi matériel lébu yoy ci ay canari la doon ok fa lañ doon denc sen perle yi sen affaire yu bari xam nga loolu sen ciosan la moo tax ñu jël fa jaraf nak moy jagaraf ja degul jagaraf déggul pour ar moy ne jaagaraaf olof di wax lebu di wax ok serer dina wax jaraaf aussi séeréer aussi am na jaraaf. man mii di wax ak yow ab jaagaraaf la. ok kon ba kon daal kon nag histoire boobu boog sama gaal il faut ngeen ñëw ramadan des éleveurs daje fa ak ñu mel ni Pa Arona Sall ñu leen wax histoire yu mel ah, euh, euh, mars au premier avril macha fii ci terrain San Siro. macha allah mooy boo ñëwee amoo six foo foo ko laaj wax amoo six amoo foo ko laaj. en face nag. kër président dam dàq koor yi voilà dàq koor yëpp dàq kooru euh, ramadan délégor moo ci dàq parce que ñëw jox la ndogu nga ndogu ñu wala ay xar yu rafet nga dàq koor ay ah? macha allah